dal leen ak jàmm ñu ñëwaat ak yéen ci bu Bougazelli ngir indil leen ci ay xibaar yu wérte wóor ancien député bii di Seydina Fall doyen des juges jàpp na ko fi mu toll nii caabi féete na ko ginnaaw ana lan moo waral jàpp googu ñu ne dafa def ay ñombe yu bari ban yan la ci ñombe yooyu association de malfaiteurs contrefaçon fabrication de signe monétaires ay cours légal sur le territoire national et à l'étranger blanchiment de capitaux et tentative de corruption maanaam Seydina Fall bu Gazali dafa bokkoon ci kuréel buy def ay ñaawteef ñu ne déetawaay muy defar xaalis bu lewut ci suñu réew ak ca bitim réew ñu foog ne foofu la yem muy lewal alal joo xamante ne baaxut ana naka noonu nag ñu ne mbirim ger sax am na ci lii moo tax doyen des juges daal di daan kiilee di Seydina Fall ba caabi féete ko ginnaaw jamono ji ñuy wax nii waaye caabi jooju ko féetee ginnaaw du moom rek de am na ci ñeneen ci ñoo xamante ne ñoom la doon àndal ci mbir mi ci mel ni ku ñuy wax Malle Diagne nga xamante ne ab cuisinier la woon en même temps nekkoon agent immobilier am na itam benn burkinabé buy wuyoo ci turu Moussa Ouedraogo keneen ku ñuy duppee Oumar sàmb ak Mamadou Diop ñu gën koo xam ci Dev am na itam ku ñuy wax Khalifa Ababacar ñu gën koo xam ci Këls ak Ousmane Diouf moom it ñu gën koo xam ci Nges ñii ñoo nekkoon ñiy àndandoo bu Gazali ñoom nag daanaka biñ leen di jàpp amuñu woon avocat waaye fi mu toll nii kat juge bi dina leen déglu ngir leeral daan yiñ leen nar a teg ay mbir mi fi mu tàmbalee ba fi mu jeexee bu Gazali daf cee taq rip daanaka moom moomule moom mooy ndayi mbill maanaam li ñuy wax mooy cerveau bi ginnaaw jàpp giñ ko jàpp loxo ci poos maanaam fekk gi ñu fekk alal gu bari ci wàllum euro ak dollar ci biir otoom gendarme yi dañoo yoroon ci moom ay waxtaan audio yoo xamante ne mu ngi ci waxtaan ak client yam yi ak complice yi ngir xool naka la ñuy def ngir lewal alal jooju. daanaka audio yooyu yëpp toll na ci ñetti audio yoo xamante ne ba mu demee di jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy mën a l'enquête bi tegal nañ ko ko moom muy dégg waaye ana lan la tontu ci mbir yooyu. ci audio bu njëkk bi Seydina Fall mi ngi ciy dalal xelu client bi di ko xamal ne ko dara du ko ci fekk ndax moom sax ci liggéeyam dafay lëkkaloo ak commandant ak procureur commandant boobu mu wax mooy commandant Meng bu brigade de recherche ak procureur bi nga xamante ne moo nekkoon ci mbirum Thione Seck bi lii la xamal waa jooju ngir dalal xelam di ko xamal ne ko moom business bi muy def business bu wér te wóor la te bu ko defee it dara du ko ci fekk waaye daa mel ni dara fekk na ko ci. biñ ko tegalee audio bu njëkk boobu Seydina Fall dafa tiit xulli bët ya xamut lu muy wax mu tourné xool ñi ñi waaye ana lan la ci teg <laughs> waa ji nee na da doon kaf rek <laughs> Seydina Fall nee na da doon kaf rek yi muy wax yëpp ay waxu naq soxondang la da doon kaf rek ca noonu gars yi daan ne ko comme da nga doon kaf nañ la tegal beneen bi bi ñeen beneen biñ koy tegal nag beneen biñ ko tegal nag ma nga cay xamle ñaata la yore ak marchandise ba mu yor naka lay def lan la ca yor mu ngi xamal waa jooju ne ko moom kat ay billet cent euro cent dollar la ca yor. te ñaareelu ojo ba bu Gazali moom ma nga cay wax marchandise ba na mu demee ak lan la yor mu ngi xamal sax client bi mu doon waxal di ko wax ne ko man kat li ma fi yor. mooy ay paquet yu cent ñaareelu ojo ba ma ngi ci siq ay waxtaan ak ay clientam di leen xamal ne moom kat ay paquet euro dollar ak livre moom la yore ko ci gendarme yi laajee ay leeral daf ko weddi ba tëdd ci suuf nee na wax jooju du moom de waaw waaw nee na baatam du moom de lii mu dégg nii du moom waaye moom la gendarme yi xaddi wuñ benn yoon tegal nañ ko bu njëkk bi mu ne da doon kaf ñu tegal ko ñaareel bi mu ne du moom ñu ne nañ ko tegal ñetteel bi ana la la doon wax ci ñetteelu audio ba yoon ci ñetteelu ojo bi mi ngi ci wax ak benn client am di ko xamal ne ko moom daal ay paquet ay coupure yu cent dollars en billet noir moom daal la fa yore waaye nee na lu mu rii demeewul noonu de am na ay explication yu mu fa jox nag waaye ay naq sa xundang la ndax tojul yuuru waa gendarmerie li wér te wóor mooy Bougazelli xamul woon mbir mi num deme ndax daanaka nit ñi jàppoon nañ ko bu yàgg a yàgg waa gendarmerie jàppoon nañ ko bu yàgg amoon nañ ci moom ay preuve lu yàgg dañ doon néegandi rek ba mbir yi yemb ñu daal di koy jàpp bi ñu ko indee na indil ko preuve yooyu yëpp xam naa ne daana ko waaji daal daanu na rek fu ñu jaar rek dañuy gis ne waa ji daf cee taqarib ndax moom moo nekkoon ndaje bi liggéey ginnaaw bi ko caabi féetee ginnaaw li ñuy laaj nag ñun ginnaaw bi ko caabi féetee ginnaaw mooy ndax bu Gazali mii dana tëdd li nga xamante ne moom lañ ko daan am président Macky sàll da ciy jóg ngir génnee ko ci nu ma gën a gaawee jërë ngeen jëf.